yàlla def au soir du 24 bu ñu xëyee le 25 le 26 ñu dajewaat feetewaat ko nga xam ne tey moom la ñii soxla moom la askan wi soxla mooy le président Macky Sall du nuyu ñëpp nag du dale nuyoo bi ci ki xam ne tey jii tey moo waral lépp tax lépp am gannaaw sunu boroom mooy kan ki dooleel ndeykat ku soxlaal ndeykat yi yëkkati ko dooleel ko may ko lépp moom mooy kan Serigne Sow Thiam mi ngi nii toog nema ko ñëpp tàccul nga xam ni ndax kat buñ nee tey jii jën ndox moo tax ñuy wax mais ki nga xam ne tey mooy Sow Thiam gannaaw yàlla ak yont bi tey lu kat nekk tey lu kat dugg tey lu kat yi am tey moom mii la kon nga xam ni doolee jën ndox la kon tey Sow Thiam man en tant que ndijaaykat yi man maay wax ci turum ñi nga xam ñooy askanu ndeykat yi ñu ngi lay sant di la gërëm te xam ne xel rusloo wañu bañ la ko joxee ba léegi lépp tegu na ci yoon macha allah lépp tegu na ci yoon Sow Thiam ñu ngi lay sant di la gërëm di wax tam lenn li nga xam ne tey moo ñu tax a jóg kati tey jii lii mënul woon ñàkk am ci moom kati kati Gadiaga mii tey ne kati Sow Thiam lii mënul woon tey ñàkk bañ am ci moom. ndax ku xam kati saw caam kam gi nga xam ni moom mooy tey alaaji Ibou Gadiaga moo ko jur ku xam Ibou Gadiaga Kees moo njëkk nekk lawbe intellectuel fi à Kees ku xam Ibou Gadiaga xam moo njëkk nekk lawbe intellectuel fii à Kees tenir lawbe yi jàppale lawbe yi ba lawbe tey lépp lu askanu lawbe am tey siggi tey jii fay ci Ibou Gadiaga la jógee kon boog kati mu doon ñàkk am lii ndax ndax baayam ci Senghor la jëkkee njëkk ci Abdou Diouf kon tey kati say kati mii tey bu ñëwee tey ci Macky Sall wàcc na triché wu ko de daf ko jëli ndax bàyyi moo commencé woon lii ci lawbe yi kon lawbe tey bu ñu amee tey grâce à moom mii tey di papaam di wax aussi naan lenn ki nga xam ne tey jii moo ma waroon Bawol mooy ki nga xam ne mooy yaay kati Thiaw mooy sama mag di sama yaay du sama mag de sama yaay la ndax bi ñu nekk tuut nag sama yaay man mii la jëloon teg ko ci ay loxoom muy kan seeni saw sama mag la sama yaay la joxal leen ma ko loxo bu baax a baax ndax xam jigéen ji man góor la seeni saw musul a tricher musul a xam dara la preuve ane ko ba jëkkër ah ba sëriñam gaañoo muy Ibrahima Gadiaga ba léegi nangu la sey fenn koo wax mu ne la ma doon sey sëy naa ko koo ko may ajaa seeni saw mii tey moo tax lii tey mu am ko loolu dinaa ko wax ca kaw ndax tey ba jëkkëram wàccee liggéey ba léegi amul tey fenn foo xam ne tey jii dem na foo la mu dugg fenn kan la àndal mu ne la ma doon sëy sëy naa ko pare kon li ñu des mooy jaamu suñu borom loolu moo tax mu am lii mu am tey jii sëy sëy saw jërëjëf yiir nga ñu yiir nga ñu yiir nga ñu tey jii sama yaay fa mu tëj tey xolam seet na guy sama ba fa mu tëj tey xolam seet na guy kon ñu ngi lay ñaanal yàlla fi yàlla gën a bàyyi sunu kanam di ñaanal madame madame Kati nag moom sama séddoo la nekk sama xarit nekk sama lépp lii mérito na ko ndax ci tey jii tey bu ma taxawee tey dégg àllaaji moom la bu ma taxawee tey dégg àllaaji tey jii moom mii la tey kon nga xam ni kon tey lii du chance mérite la dafa mérito lii mu def ndax askan wi yàgg na fi te lii kenn musu ko am kenn musul am lu mel nii ci papaam la njëkkee woon ci moom mi la mujje fi mu nekk nii kon kat yi yal na la yàlla defal jàmm yal na la yàlla lafal cet man sa nijaay de kontaan naa trop ci yow ak képp kuy sa nijaay du nuyu sama mag yi xam tey présentul ndax liggéey ma ko jàpp mooy Alpha saw du ko bañ a tudd ndax tey jii tey ñun ñëpp kat yi yiir nañu wax naa ñun nga xam moo nekk jàmm yiir askan wi yiir ñëpp. sagal lépp luy askanu Laobé sagal képp kuy dëkkandoo sagal képp koo xam nekk tey jërëjëfkat yi jërëjëfkat yi jërëjëfkat yi yàlla na fi yàlla bàyyi bàyyi fi sa jëkkër bàyyi fi ñëw ko salaam du luy Maodo Malick aussi ndax Maodo Malick càmmiñ la ci kaw càmmiñ yi Maodo malik du tricher muk càmmiñ la ci kaw càmmiñ yi kon boog Maodo maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm ñëpp nag di gërëm ñëpp jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla na fi yàgg ak jàmm te te ñu ngi ñaanaat féete mënumaa lim mouvement yi bëri nañ gis nañ lépp samay kàddu nag du bëri torop kàddu soññee rek lay doon ndaxte ku ne xam nañ ni ñoo ngi ci tey la jeudi vendredi samedi dimanche 24 ñëpp war a dem ci urne yi kon nag luy jot jot na luñ waroon a wax ak yéen je pense nañ porte à porte bu mat sëkk waxtaan ko ak yéen choisir ngeen jigéen bu jara jàppale muy madame Kati Sow Thiam ñu xam ko ci jom xam ko ci fulla xam ko ci liggéey xam ko ci njub xam ko ci dëgg mu taxawal mouvement boo xamante ni mën nañ ne c'est un mouvement apolitique parce que dimbali jigéen ñi ak ndaw ñi rek ko yëkkati woon waaye ci biir am solo président de république ràññee ko waxtaan ak moom ne ko pour mu ñëw cees Green Sota ñoo liggéeyal ko jàppale ko pour que l'APR gagne Thiès et tout le Sénégal au premier tour loolu mooy suñu sas mooy seen sas yi ñëpp ñuy toog tey nag le 24 bu neexee yàlla bu leen xeeb benn carte na ngeen dem ci urne yi na ngeen génne nit ñi ku nekk voteel le président Macky Sall ñun dinañ veiller si ñëpp

maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di ñu jiital ci nuyoo bi DG Maodo Malick Mbaye di ci teg honorable Yaya Ly bu AFP di ci teg tonton Sow Thiam tonton Sow Thiam dinaa taxaw tuuti ndax am na loo xam ne mënut a ñàkk boo ñu fekkee fii ba Thiès tonton Sow Thiam ñu defar lu ne étant étudiante bu ñu mësee manqué bic mbaa dañuy tàppe soutien yóbbul tonton mu yëkkati xaalis bu bari def ci enveloppe jox ñu ñu dem bu nit ñi waxee ni ko asow ah, yaag étudiants yi mu ni sama jaboot lañu nekk nañu ak moom université ba génn fa mësuñu ko attaqué mësuñu songu resto kon tonton Sow Thiam jërëjëf boo fekkee tey Thiès xam naa bu may pare dina jox sa àllarba ndax participer nga lu baree baree bare ci man jërëjëf di nuyu ndeykat yi Gajaga li ñu boole nag dafa yàgg sama kër maam lañ ko doon fekk muy sombeel ñuy ànd nekk xale ñu jékki-jékki gëj a waaye mu ñëw firnde rafet ndax dafa ñëw woo ay àndi démbam ku ci nekk mu wax na ni ñëw naa ngir jàpp waaye sama waaji sama waaj na fekk sa waaji mat waay ndeykat dañu bokk président Macky Sall moo jara jàppale xam nga lu tax moo jàppale jigéen ñi président Macky Sall moo defal jigéen ñi bourse sociale président i Sall moo defal jigéen ñi couverture maladie président Macky Sall moo defal jigéen ñi gratuité césarienne président Macky Sall moo taal lamp yi ci monde rural bi président Macky Sall moo defal gratuité vaccin du col de l'utérus moo ko defal jigéen ñi président Macky ma ne ko président li nga def bari na de li nga def bari na de mbaa di yi mu ne xaj na ci dañ ko cee deful woon te pourtant yamuma foofu ma ne ko foo jëm mu ne ma maam dund gi dinañ ko wàññi te dootul yokk bu gënta wàññee dootul yokk te boobu ba léegi loolu régeekuwul kon suñu waa ji mat na waay suñu mbër mi mat na mbër bu ñu xoolee nag toogaay bii ay jigéeni kese la kon jigéen ay sal mooy folli te yéen jigéen ñi dama leen di dolliwaat ni leen ki fi nekk ki fi nekkoon fii ci Thiès nekk na fi premier ministre mosu leen ci gis seen bopp tey nag président Macky Sall ñëw def na fi lu ne jox nañu tali jox nañu ñuy faj te duñu fay dara wàññi la dund bi indi nañu université xale yi dematuñu Dakar taxawaalootuñu ñëpp a ngi jàngi yokk nañu école yi yokk doole yi jigéen dama ne ku la lebal ker fay ko guddi président Macky Sall li ñu war mooy ñu fal ko dimanche dès le premier tour ñu am ndam fii ci Thiès day gañe naam day gañe président Macky Sall day gañe waaye nag ñun waa Thiès nañu fexe ba buñ ci def ginnaaw balaa 5 heures nañu leer ci suñu bopp ni président Macky Sall gañe na au premier tour wasalaam. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di commencé di sant yàlla. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm samay ñaari waajur di ñaanal sama waajur bu góor yàlla na xippee àjjana sama waajur bu jigéen bi ma fa dese yàlla guddal fanam te wéral cëram may gërëm Alaaji Saw am bu baax mi ma yàlla booleel ndax lii tey bu ma amee odaas def ko ci ndigalam laa ko defee moo ma jox ndigal moo ma ñaanal ne ma jógal nga jàppale président Macky Sall ko moom moo la ko sant kon maa ngi koy gërëm di ko sant lu bëree bëree bëree bëri mouvement bi nag li ko tax a jóg mooy jàppale jigéen ñi ak jeunes yi parce que dañu gis ne Sénégal léegi jigéen ñi nekkatuñu ay yaafuf tout les femmes sont braves jigéen ñi ay jàmbaar lañu ay ñafekat lañu moo tax bi nu jógee président ne nañ ko jàppale ci élection yi mu yebal ñu ne dem leen demal jàppale ma Thiès ma ne ko dinaa ci sawar ndax Thiès fa laa juddoo fa laa yaroo falaa màgge falaa laa jànge donc Thiès ku ma fa yebal ma sawar fa bi ma ñëwee Thiès ma fekk fi sama ay mbokk fekk fi sama ay xarit fekk fi sama yand jàmm

mouvement bi nak tay lan ko lancer peut-être créé nañ ko depuis fan yële ci ginnaw waye tay la lancement bi tay aussi la ni jël liste adhérents yépp tay lay door waye ñaan nan yalla mouvement bi di law di law di law ba suñuy seut ñi fi ñin fi dajalé nak lépp lu leen wax rek lu nekk ci ñun la ndax ndaxte defuñu politique wote wootewuñu rek pour tay ñu and ñu japp lañu ñu le président Macky Sall de ñu paree ñu de nous la dool déedéet loolu dit que nous gëm jigéenu Thiès gis jigéen ñi nekk ay Nous ñu créé mouvement bi ngir ci sur le président Macky Sall le 24 février bu ko yàlla nous ndam ay soxlaam ak Thiès la ba nga xamante ne lépp luñ ko lebal ci jàppale ko ba mu faloo bu ëllëgee dana jàppale jigéenu cees ba jigéenu cees xam ne ki ñu lebal lu ko waaye lebal mu fay la ko ndax bëgg na Sénégal am na yéene ci senegal am na projet ci senegal am na projet ci jigéenu Sénégal kon mouvement bi ñu ngi ñaan sunu borom yàlla na ko suñu borom téyel yéene yi ñu ci am yàlla na ko suñu borom mottali yépp te gëm na ne incha allahu ci kàttan suñu borom yàlla dina ko mottali maa ngi sant ñëpp nag avec yi fi teew yëpp yëpp yëpp ndax su ma limee rek damay juum maa ngi nuyu avec yi fi teew yëpp sama mbokk yi fi teew yëpp xarit yi fi teew yëpp am di jàmm yi fi teew yëpp centre handicapé ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu tamit sama frère mooy le président du mouvement gëm sa bopp elage Hadj malik mbay ndaxte bin ma yebale na wa jàppale ma Thiès su ma ci découragé woon kon du ma ñëw bi ma ko ne damay créer sama mouvement pour jàppale jigéen ñi su ma ne woon loolu boo ko defee coono la lay jural wala sa liggéey bi doy na la wala nangam ak nangam am na xam su ma kon mun na am dinaa découragé mais daf ma encouragé yaatal ma ci terrain bi jàppale ma teg la ma ci yoon moo Malick Sy mbay maa ngi lay bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi remercier également responsable APR AFP PS ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax seen teewaay ak seen déplacement ak seen dérangement di remercier aussi staff bi nga xamante ne ñoom ñoo ma jàppale ci liggéey bi fii à commencer par Mouhamadou Moustapha saw ñu naan kon Sidi Ndiaye jërëjëf merci beaucoup. di remercier bu baax a baax a baax naa saw Ousmane saw abu saw El Hadj Abdoulaye Sow Mam Yelil Lam Mamadou njaay mii taxaw. ak les jumeaux waaye di nuyu aussi les dames qui sont autour de moi madame Ndeye Awa mbay ak Bintou Gueye madame Diagne maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax seen taxawaay seen jàppale rafet na di nuyu ak di remercier également sama xarit yi nga xamante ne ñoo jógee ba Dakar déplacé wu ñëw uniquement ngir sama bés bi yen ñi joggé Dakar ñep ma ngi leen di nuyu di leen remercier bu baaxa baaxa baaxa baax sante na amul fu muy yam waaye ma ci ci es ma ngi leen di sante tey am yaakaar ci bu baaxa baaxa baaxa baax ndax tey li ngeen def yombul ni ngeen mobiliser woo 16 heures ba 28 heures loolu yombul am gëm-gëm ak Pastef moo leen ko tax a def ak gëm li nu tax a jóg mooy booloo boole sunuy doole gëm li nu tax a jóg muy bu dimanche ci kàttan sunu borom ñu dem voter la président Macky Sall ndax mobilisation yëpp neex na lii yëpp neex na waaye sunuy projet c'est vrai que yàlla moom moo ko yor waaye ki nga xam ne am na yéen a jàppale sunu projet nag mu jël ko boole ko ci ay priorité am ki la jox ndékki bu la déggee añ mën nga koo gëm te président Macky Sall. li mu liggéey Sénégal li ma wax barki démb ma ni jant moom bu xasee ba fenk boo gëmee say ba sax di nga yëg ne naaj bi jóg na président Macky Sall li mu liggéey ku gëmm sax wala ku bëggut dégg nag wala ku bëggut a gis loolu kenn muñ ci dara ndaxte élection la nu wax te élection ñii dañuy far fii ñii far fee waaye même ñi ko compte xam nañ li mu liggéey ci Sénégal 52 ans yi passé avant moom trois présidents yi fi nekk avant moom liggéey li mu liggéey ci sa temps yi kenn liggéeyu ko ci kon nag ñun Sénégal rek kon nag ñun li ñu ñor mooy senegaal Sénégal rek moo ñu ñor bu ñu gisee ku bëgg Sénégal jàppale Sénégal am vision pour Sénégal bëgg a liggéey pour Sénégal boo nu tàllale loxo dañuy jóg wuy la ndax ñun liggéey rek moo ñu ñor liggéey rek la ñu maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp. di remercier sama umpaañ yi di remercier sama tonton alfa bu baax di remercier tout le monde sant bi daal amul fu muy yem waaye maa ngi remercier ñëpp kontaan naa lool seen taxawaay rafet na kontaan naa ci yéen ñëpp lii gën a neex nag mooy la gën 24 février yàlla ci kàttan suñu borom mun naa may mag Sall ndam ci Sénégal yëpp waaye lii gën a doon suñu fierté gën a neex ci ñun mooy le 24 février fii ci Thiès Macky Sall am fi ndam bu mu amul fenn ci kàttan suñu borom. mbokk yëpp askanu Lawbe yéen ñëpp maa ngi leen di remercier di leen sant di remercier mouvement yi nga xamante ni maa ngi leen fekk Thiès yëpp ndax ñun ñëpp bu nu bokkul fu ñuy rootee ñoo bokk fu ñuy sottee te suñu yitte yëpp benn la mooy falaat le président Macky Sall au soir du 24 février maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf di remercier. mbokku Thiès. ñi ngi nuyu bépp responsable bu fi nekk di nuyu suñu sœur na bu Mar waroon na fi am kàddu mais xat-xat yi moo tax mu jéggale ko ñuy nuyu jigéenu mouvement conscience citoyenne gëm sa bopp yi di nuyu madame faatu Kara nekk jeune engagé wu au niveau de la l'APR di nuyu ñëpp Mambay Gueye ñu ngi lay nuyu di ko teg nuyoo boobu pour nga joxal ñu ko jigéen ñi mais di beral nuyoo d'abord suñu mag suñu goro muy monsieur saw càmm li tax mooy nit bu defee lu baax nit ñi waruñu tay seen làmmiñ warul lot ci nit di ko wax ndax bu fekkee suñu sœur di Kati Gadiaga dafa engagé wu dama am chance su fekkee jotaayam ak président Macky Sall bu amee yéene bi ñëw boroom këram di suñu goro bàyyi ko jàppale ko ba pare ñëw teew war nañ ko delloo njukkal grand sow ñu ngi lay nuyu bu baax di la delloo njukkal parce que man certitude laa am ni boo ni ko woon waxuma sax nga tere ko mais bu xamoon ni sawaroo ci rek daf koy teg ci suuf kon ñu ngi lay sant bu baax di nuyu suñu yaay Seyni Sow di nuyu bu baax waa centre handicapé ñiy teew def ngeen yëfu gor def ngeen yëfu ñu ñeme féete suma yaay daf doon wax ni bu ñu nemee bu ñu nee ragala féete day xañe wërsëg sama yaay ni déedéet ragal a féete daf lay xañ sa dignité ndax am nañu féetewul fenn te kenn ëpp leen wërsëg ndax lu jóg ñu laal ci mais yéen da ngeen a choisir tànn bi ngeen tànn nag ànd ak Katy man daf ma wóor ni yéen a ngi ci loxo yu wér may encouragé bu baax aussi ki fi wax léegi muy maam Yelli c'est mon neveu man maa ko jël teg ko ci loxo. nous ñu bu sincérité bu and ak engagement donc mam yeli tamit encourager bu baax nak wax ci rek ma bëgg parce que politique dafa doy war bu ñu ba ci gis nit ñëw ci dëkk bu melni engagé wu am bi ba paré nak def ci ci taxaway lu lu jéggi nit ñi wu question mais lan la man si leen di wax ni Kati amul ben ambition Kati xëcëwul ben poste Kati xëcëwul député xëcëwul maire xëcëwul dara lenn dal la kenn du ci ñëk te le président Macky Sall au soir du 24 février ma leen di seedeel aussi ni dërëm bum ci def dërëmu boppam la tàggoowul pour am ñu yàpp ko ni ko yóbbaale lii def ci lii donc bu defee loolu nag ñun ñi mat ci seede ci kanamu président Macky Sall dinañ ko ko seedeel ci ay bokkam seedeel ko ci mbooloo mi ba ñëpp xam ko léegi nag ci li ñu jëm dañoo jëm ci tànn élection question bi yomb na kula la saf lan la laaj wala ko bëgg wala kula saf ñu tégal ñu juroomi candidat ñu am candidat bi nga xamanteni en 2012 bi muy tan bu doon Thiès rek kay fal président de la république Macky Sall du c'est-à-dire électoralement Thiès 2012 Macky Sall téeméeri Thiès wa yo jël juroom ñaar rek ñoo ko ci voter kon xam ngeen ni lu mu def ties parce que nous damay fay bor ñun kay ñun fait lekk avance am fi ñu 24 février nous bëgg bëré bañ bëré ndax sëgg bëré ta daan rek fi en 2012 président Macky Sall am 7 bi muy directeur général bu dëkk fal na ministre bu dëkk Thiès ñu dem 2014 di wut mairie téemé juroomi téeméeri mairie mo am ak juroom fukk Macky Sall gagné juroomi téeméer ak ñaar fukk yépp fanwer yi nga xamanteni gagné wu ko Thiès ci la bok batay mu ne duma bayyi wa Thiès dé wa Thiès ni ko ñun problème ndox lañu am 4 h du matin lañu ñuy duñu am ndox di rotane mu faj problème mu ndox bi ñu ñëw ni ko monsieur le président ñun dey problème bi ñu am mooy suñuy làmp ak lu jëm ci loolu doyul Macky Sall am 3000 lampadaires yi nga xamante ni dañ ko ko jox bu ko doon séddale 100000 lampadaires la bu ko doon séddale làmp yi dëkk bu nekk yaa ngi war a am ñaari téeméer mu jël ñetti junni làmp la jox Thiès ni voté ma mais man maay président Sénégal yëpp dama leen di jàppale. ñu ñëw 2017 2017 législative yi mu gagné fête gagné département bi waa Thiès bañ ba tey mu ni leen waaye day man maay président de la république du ma ko teg ci wàllu politique dinaa jël Promoville dugal ko ci jël tali yi dugal ko ci dëkk bi jël assainissement bi dugal ko ci dëkk bi may laaj gaañ léegi ñun dañu war a poser suñu bopp lan la ñu bëgg c'est-à-dire lan la ñu bëgg. 2012 am na lu valable loon parce que mënoon nga ni ah man kat dafa am ku dëkk Thiès di laaj ki dëkk Fatick xamaguma ko mën naa tànn parce que dëkkandoo mais ñun amatuñu choix beneen bu ñu war a def lu dul taxaw voter le président Macky Sall massivement mu gagné yéene yi mu am ci Thiès mu yeggale ko comme on di Sénégal jëm kanam may wax ni nañu bàyyi slogan wu Thiès ki bañ. te jël slogan wu ties qui gagne avec le président Macky Sall ñi ngi leen di sant di leen gërëm di remercier une fois encore notre sœur Kati Thiam Gadiaga di remercier ñëpp di wax nak fi may terminer Tamo mo am solo tatchu yi neexna way yi neex na tëgg sabar yi neex na waaye élection de élection taxaway mo koy élection fajaru vote qui m'a koy gagné élection Djok am taxawaay bi moo gagner, gagné ñi ngi sant di vive Thiès qui gagne, amba Thiès qui bagne, ñi ngi sant di gërëm wa salam